barke borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy seetaan foo leen mën a ne ci réew mi ñu ngi leen di eh, nuyu di leen ziar di leen eh, ndokkeel di leen jaajëfal ngeen gis ñu fii nag ci Touba Darou Khoudoss euh, ci euh, fi nga xam ne nii mooy xolub Darou Khoudoss di béyti ngeen seen euh, mbokki taalibe yi nga xam ne nii fasantikoo noonu ci ay ay kuréel yu am solo mu di Baye Fall yi ak taalibe Cheikh Modou Moustapha yi boo leen ko gisee rek xel yëpp day daal di dem ci waajtaayu bis bu am solo muy bisul màggalu gu njëkk di màggal goo xam ne nii day fàttaliku bis bi nga xam ne nii ci la Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñëwee woon ci dëkkam bu tedd bii di Touba te bis boobu ñu koy fàttaliku at mu jot mu doonoon nag ci ñaar fukki fan ci weeru muharam maanaam ci weeru tamxarit wi bis boobu nag xam ngeen ne buy ñëw dafa am ay waajtaay yu am solo yoo xam ne nii danañ ko ci def bokk na ci ci benn ci bisub tey bi muy mbale mi mbaleem Touba Daarul Xuddus mbale mi nag buñ delloo tuuti ci cosaanam nekk na loo xam ne nii Cheikh Modou Moustapha wax nañ ne moo ko jëkk a def ngir waajale ko li nga xam ne moo di bis bi euh, buñ tuddee Cheikh Modou Moustapha tudd màggal gu njëkk gi xel yëpp day daal di dellu ci mission bu am solo boobu nga xam ne ni Serigne Touba Cheikhul Khadim dénkoon na ko ko muy bis bu fi bàyyeekoo mu indi ko fii ci Touba taxaw ko ci anam yëpp Cheikh mu Moustapha def na ko waaye yemut ci lool saa su bis bi ñëwee mboolem juddit yi ak taalibe yi rawatina nag taalibe yi aju ci moom dañ koy waajal ci anam yu ne wax nañ ne mbale mi bis bi bu jotaa Cheikh mu Moustapha mooy jëkk a génn da daan buub sax di def ci ay yéreem ngir jox gëdd jox tolluwaay jox dayo bis bi nga xam ne nii ci la Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñëwee woon fii ci tubaa mu nekk bis boo xam ne itam làq na ay njëriñ yu bari ni leen ko waxee itam at mu jot. Euh, mbokki taalibe yi daayira yi moo xam muy daayira yu mag yi nekk biir Daaru Xuddoos moo xam cheikh yi ak Baye Fall yi ñoo ñëw ànd ak mboolem taalibe yi ngir nag waajal bis bu tedd boobu bale mboolem kër yi mboolem penc yi nga xam ne ni dafa nekk ci Daaru Xuddoos ak li ko wër ngeen gis ke ñu tàmbalee ko ci euh, euh, génn wala ci ndigalu cheikh euh, Mountakha Mbacké waaye ñu tàmbalee ko itam ci ndigalu ki nga xam ne mooy cheikh Ahmadul Muxtaar di xalifa cheikh Modul Moustapha boobaak léegi itam mboolem ruq yi rek bale nañ ko waaye itam xam ngeen ne ren ji màggal gi dafa tombé ak nawet bi moo tax mbale mi am nag soppe gu am solo gu ci am muy mbay mi ak itam sak mboolem ay taataa wala as mboolem ndox mi nga xam ne ni jàpp nañ ne mën na gàllankoor nit ñi ci biiru bisu màggal gi loolu tax na nag ci CRD yi nga xam ne ni def nañ ko moo xam muy mairie bi wala gouvernement bi ni jëloon nañ ko ci mbale mi waaye itam ci kanam tuuti dinañ ànd ak ñi nga xam ne ñooy comité d'organisation bi rawati nañ yore wàllu mbale mi ñu defal ñu benn bilan waaye lépp ñeel waajtaayu màggal gu njëkk gi jëm màggalu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul fii ci Daaru Xuddoos kon niñ ko àndee woon ak ci ndorteel yi fas ko ànd ak yéen ci waajtaay bi noonu lañ ko fas yéene ànd itam ci euh, diiru màggal gi lépp loo xam ne ni am na fi ngeen mën koo seetaan foo leen mën a ne jërë ngeen jëf Moustapha santal dayab cant yaa amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Mustafa Cheikh Mustafa santal dayob yaa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo bisimilah barke borom Tuuba mbokk yi ba tey ñoo ngi wéeg yéen uh, ci uh, mbale mu am solo mi nga xam ne nii ñu ngi koy def uh, fii ci Daaru Xuddoos di waajal magal gu njëkk gi xam ngeen bale mi ni ngeen ko dégg ci annonce bi ni ngeen ko doon seetaane ci at yëpp itam njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ci jiitu ñu toog nag ak Serigne euh, Fallou Fall di jëwriñu Serigne Modou Aminta Fall ñu koy ziar di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér waaye di jiital ci ziar yi Serigne Cheikh Jëmb Fall mi fi nekk jataay maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla na fi yàgg loolu te wér ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp kon ni ñu leen ko waxee léegi rek ñu toog ak itam euh, Baye Ibrahima ja Baye Bara Mbodj ñoom ñi nga xam ne itam miin nañ leen ñu yore lépp lu communication wala ñu bokk ci ñëpp yu yëkkati ay kaddu euh, ci euh, sëriñ bi. waaw sëriñ Cheikh Fall Ndiaye Mbengue moom itam mu ngi na la toog itam bokk ci njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall waaye ni leen ko waxee rek ñu toog ak suñu ñaari baay ñu jiituñu ci communication muy baay Bara ak Baye Ibrahima Dia. fépp foo xam ne ni sëñ ba ma nga fay itam di yëkkati ay kàddu ñu min leen fa kon duñ def lu dul jox leen kàddu gi su ko defee ñu yëkkati ay kàddu ñeel mbale mi nga xam ne nii naka jekk njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall dañ ciy ànd ak ñi nga xam ne nii ñoo di waa Daaru Xuddoos ñeel màggal gu jëkk gi. bis bii nga xam ne da ngeen a ñëw ci kanamu Serigne Falilou Fall di jëwriñ Cheikh Modou Aminta Fall di jëwriñ maam Cheikh Ibrahima Fall jamono yi nu toll mu dend ak woy juróom bu ñuy wax sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng Fall. nekk ci liggéey bi nga xam ne ndigal la lu bàyyikoo ci Serigne Touba ñëw ci Cheikh Ibra ñu teg ko ci loxoom Cheikh Ibra moom li mu séddoo digganteem ak sëriñ Touba rek mooy la yonant bi alayhi salaam waxoon sayidul xawmi xaadimu um ki sàngam mbindee fi mooy ki leen di liggéeyal looloo waral Cheikh Ibra lu bokk ci moom bu ñu amee itte ci Touba loo xam ne ab liggéey la bu ñu bëgg a taamu dañu ko ci dañ ciy soxlawoo Cheikh Ibra ko njabootam. ndax ñoom jàpp nañu ne ñoom rek ñoo war a liggéeyal Serigne ci li gën a bari ci nit ñi nag ndax di liggéeyal sëriñ Touba ba noppi bokk ci taalibe yi te bu ñu nee dañuy liggéeyal Serigne Touba nga ne Baye Fall yi ñoo ko moom kon ndekete kon liggéeyal Serigne Touba Baye Fall yee ko yeeyoo te liggéeyal sëriñ Touba mooy jaamu yàlla gi gën a wér léegi ci jamono jii ndax boo demee ca diwaanu naar yi. di nga dégg benn naar buy wax naan xadimu um baraatu stilali ma as o toxni an stidlali liggéeyal waa kër Serigne Touba moo gën a màgg ci ku bëgg am njariñ ci yar digganteem ak boromam ndax boo ko liggéeyalee dañuy bind ci sëb jë xaasa bari un mina naar ku denc sawara ngi nii looloo waral nag bu waa kër Serigne Touba ittewoo te la ñu ittewoo bëgg mu sottee nañu ko bëggee siin xel du wala yànge ci sëriñ ci Cheikh Ibra képp lay xalaat bu ñu ñëwee ci Cheikh Ibra rek am na ñu ko bëggee moo tax waa kër Cheikh Ibra fi teew yàlla dogal nag sëriñ Falilou Fall di jëwriñ ji ci kër Cheikh Ibrahima Fall ànd ak ay waajuram ak ak ak jëwriñam Cheikh Moustapha Fall Falilou ak jëwriñu takko takko ñu ñëw ci liggéey bi di ko liggéeyal fii ci Touba Darou Khoudoss waaye ma jox leen ah, sunu mbokkum bopp di sunu àndandoo. muy alhaji Ibrahima Dia moo yaatal ko ndax bari na lool moom ni ma koy xamee man duma ko ni xame kon alhaji Ibrahima Dia bisimilah. noo ngi sant yàlla bu baax di sant sunu maam Cheikh Ibrahima Fall waaye di sant nag kenn ci boole di Cheikh du Falil Fall ak jëwriñam ji di Serigne Fallou ak Cheikh Moustapha ak njaboot gi yëpp nag. Eh, dellaat di santaat yàlla bu baax ci ndigal li nga xam yàlla dugal rek jógee nañu fi mu war a jóge eh, ba tabbi kër Cheikh Rafal te loolu mooy lu daan def naka jekk te bëggoon ko te nam ma ko lool ndax ci jamono yi Cheikh Modou Moustapha Mbacké day booba jamono xam nga Cheikh Modou Moustapha Fall mi ngi fi woon waaye naka jekk noonu la woon ak sëñ Modou Moustapha Mbacké yeggoon na sax ci mujj di ko wax naan ko kat bàyyi mat laam man ko damaa bëggoon nga dimbali ma ci ku baax ki euh, fu ma amati fukki fan ak juróom na ma fa ndaw fekk loo fa dajee sama loxo ma yëkkati ko jox ko ndax adduna day giiroo te ba ma sañoon adduna moom du ko ëppale ci man mukk kon bu ñu demee ba léegi yàlla dogal ñuy fàttaliku jëmm ju baax jooja e, di nu sant nu liggéey kat Cheikh Ibra ñëw fi waaye suñ jëwriñ ji jiite ko nag sëñ Fallou Fall jëwriñ sëñ Modou Aminta waaye ànd ak jëwriñam nag Cheikh Moustapha Fall Fallilu ànd ak njabootu Cheikh Ibra Fall gépp nu bokk fi teew kon daa mel ne kat Cheikh Ibra Fall moom daa mel ne yeesaat nañu peq yeesaat nga peq gi nag gannaaw nun ndigal rek mooy sunu dund mooy sunu ñam mooy sunu lekk mooy sunu naan ku ko jox ku nekk amee na la cant. li maam Cheikh Ibrahima Fall lépp lu mu am ci euh, Serigne Touba la ko amee. waaw ginnaaw Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. waaw Cheikh Ahmadou Moustapha la. bu ñu ko waxee Cheikh Ahmadou Moustapha la. bu ñu doon wax euh, wala boo ñu doon baaxee tuuti ci diggante maam Cheikh. Hmm. Ibrahima Fall ak Cheikh Ahmadou Moustapha lan nga doon nga boobu diggante moom. Euh, diggante boobu dafa neex a leeral ndax sama jëriñ ñoo ngi toog sëñ Baara Mbodj xam nga bu ñu demee ci wàllu njàng wala wàllu téere dafa am ñaari baat yu ñuy lëkkale yoo xam ne dañoo dend sariatu moom mooy jàng ba mën a xam waaye boo jàngee ba mën a xam itam doo mën a liggéey ndax am na loo xay liggéey koy maye kon sëñ bi bi mu waxee ne daara ji da koy wub daara ji booba tarbiye daa ñu ko wut kon bi suñu maam Cheikh Rafal ñëwee nag tarbiye mooy lii fi mu ne mën ngaa jàngub ko waaye lee gaa ñi def doo ko mën kon Cheikh Rafal moo indiwaat buntu boo xam ne bi ci lañ mën a liggéeyal Cheikh Amadou Bamba ba nga xam ne bi mën sa ca jëriñu nun ñëpp ko xamee woon noonu rek kon nun ñëpp dañuy feeta wéet la indi woon nun ñëpp nu bokk ci xam ndax alxuraan baax na lool waaye boo jàngee alxuraan ba mokkal ko te tarbiye woo doo mën a gorub gayet doo mën a yettum defar néeg doo mën a tabax doo mën a rabat doo mën a doo mën a bale doo mën def lenn alxuraan ngay mokkal ba mu jeex tak waaye foofu rek ngay mën yam kon tarbiye ji fi Cheikh Rafal indi nag daanaka moo indi tarbiye gi moo indi liggéey bi moo indi njariñ yi moo indi yëpp la ca jëriñ nag mooy di wéy ci ndigal te bàyyi fi tere rek loolu nag mooy tata ji nga xam ne moom ku ca dugg ku ne sa borom dimbali la képp koo xam ne yaa ngi bi ci ndigal bàyyi fi li ñuy am nga muslaay daanaka jëru ngay wut dara soo demee ci xasida yi sëñ baal da ma jégal tuuti xam naa boo demee ci jës bu rek laa bëgg a wax ci jës bu kon rek laa bëgg a xam nga am na diggante boo xam ne bii daanaka doy na ngànnaay yox ni anima daa fi rek boo ci duggee rek ci diggante boobu daanaka doy na doy na lépp su ko defee nag loolu am na njëriñ yu ci nekk yu bari ci biir yoo xam ne yii kon murid yi buñ ko xamee rek xam ne liggéey sëñ bi rek mooy li am solo sëñ bii day di sunu jëwriñ sëñ Fallu Fall jëwriñ ji la tax mu dekk garam tey jii day kaamil alxuraan ma ngi ci biiram bu ko neexoon maanaam ma wàcceb kaamil fii léegi du fi jóge waaye doyloowul kaamil bi nag lim doyloo kaamil mooy ndigal sëñ bi rek jëfe ko kon nun ñëpp buñ xasoon wéy ci loolu nag daana noppal lool diggante Cheikh Ibrahima Fall ak Cheikh Mamadou Moustapha Fall lay wax Eh, Cheikh Amadou Bamba bi mu làqoo bati nit ñi ñi ëpp bari ci nit ñi dañoo gën a mën kenn ko ne ber sa daara ngir si galfan goo galfan ci may goo jële ci sëriñ kurus bu daggee tasaaroo ku munta nas kurus bu ko nasee du jub waaye ki mën na nas kurus bu ko nasee diggal baag wet gu ne la fa war a nekk dana fa nekk noonu la Cheikh Ibra def yoonu murit defaale ko yoon yëpp it nag ndax fii mu ne yoon woo fi dem wu ab xalifa général nga fa ba ci àll bii fi mu ne boo demee léeg nga gis dëkk boo xam dañ naa dëkk bee di wéy xalifa général ba Cheikh Ibrahima ko sos ci ci jamono bi mu bi ñu jëmee ba gëlëm ci kan moo war a ne te ku ne defe ne yaa ne ba mu ne Serigne Moustapha mbake moo ne ñëpp xam nañu ne ki Cheikh Ibrahima moo fi ne moo fi ne ndax moo mat Serigne tubaat dara manqué ci moom mu ànd moom ca woowee melo. di ko defal la mu daan defal Serigne Touba ba bi muy dem da ko batale ak ab taawam muy Cheikh Mamadou Moustapha Fall Cheikh du Moustapha Fall moom nag di ko mat ku rëy am xel te bari baatin ba noppi denc ko di jëfandikoo xel ba ñu defee nag wilaaya la ndax lu ma sa xalaat rek mu tege ci yoon musta wax ak si Moussa Mbacké lu mu ko naan nañ ko seet ba xam nan ko def rek lay wax ndax xel mu rafet dong boole ci fit nag ak nangoo sonn ak joxe alalam. boo gisee Serigne Touba di wax ni wiqaayatu tawqiiri wax ir sayqaka waj al u sayidan lahu hëb xayraka xoolal ni ko Cheikh Ibra liggéeyee gën jaa màggi wegeel na ko weg sa kilifa li nga yor ta mu baax li ci gën jox ko sëb sëriñ noonu rek la Cheikh Ibra daan def gën jaa màggi wegeel fa nit ñi yem na ko weesu yow gën a la weg sëb sëriñ wegeel gi Cheikh Ibrahima al wegalan sëriñ Touba. moom lañuy jàng ba tey te kenn mën a goo ko mokkal weeg rek ak bëgg gu amulub frontière ba tax na bu sëñ bu ñu masaani sëñ Tuubaa toog na jublu penku sax moom duutul war a ngi ko penku lay jublu ndax danaan fi sëñ Bàmba jëm fi la ñëpp jëm fi la ñëpp war a jëm mu ne waj bu fekkee nag danga bëgg sa aajo faju sëriñ Tuubaa dani liggéeyalal sëriñ bi fajal aajoom xoolal Cheikh Ibrahima ni mu daa faje aajo sëriñ tubaa sëriñ Tuubaa mosut a mën a ñàkk néeg di munta ñàkk ab lal munta ñàkk am ndox munta ñàkk fu set munta ñàkk ak basang te daawu ko wutale boppam te daawu ko manki Cheikh Ibra ko daan wut te sëñ Tuubaa ko bind Cheikh Ibra jëfi ko wax de awa ijëla o ma ista bil basli wal xidmati mastataata loolu la sëñ Tuubaa bind noonu la Cheikh Ibra jëf fajal aajo sëriñ bu bëggee sa aajo fajo nga ne nu ma koy faje mu ne li nga yor te defe ne yaa ko moom jox ko sëriñ bi sa doole ji liggéeyal ci sëriñ bi moo indi sëriñ Fallou Fall ak njaboot gii fi ne ñu takk seen i ndigg topp naaj wii fa yéene setal Daaru Xuddoos ak Touba gi ko wër loolu mooy faj aaju sëriñ bi lii ñuy génne fii ci biir ci ci biir ngir ne dañoo bëgg ci biir set bañ ñu mën koo rafetal nañu ko bëggee bu Baay Faal yi taxawlu woon Cheikh Amadou Mokhtar mënalu ko boppam. ak wilaaya liggéeyu ko nii rek ko mën a def sëriñ Fallou toog joxe ndigal gaa yi takk seen i ndigg fës ko yéene jaf di déglu waaw góoram fii mu ne ñu waaw góor seen du Mokhtar de waaw góor kii toog la ñuy déglu te moom miit bu amee waaw góor ma ngi koy dégloo ca kee ak way seen kilifa ga ca Mbàkke Bool di Serigne Cheikh Jëbu Fall mbaa dégg nga bu àggee du ne nan xaar sëñ Modou Mokhtar déedéet dañu naan rek na sëñ bi ñaan nu dem. kon loolu mooy liggéey Baye Fall mu ne la nag yow taalibi bi bu fekkee danga ngaa bëgg a sëriñ bi te bëgg a jëriñoo noo war a def sëriñ Tuubaa bind de waaye Cheikh Ibra da koo jëfe moom bind ak pratiquer bokkuñu dala ne wakkun ladda sayxika kal mamluuk tablux bi darajatal muluuki boo toogee sëriñ bi danga ngaa war a mel ni ku toof ki buur buy reyee xam nga buur. néew na mu teew ah, ay baadoo la nekk fa di xaaxataay mbaa ñu taalale tànk dañu naan leewu kenn ñëw leen noppi leen dañoo ragal karawaas ak kënu kaso sëñ sëñ Tuubaa ni la boo toogee fi sëriñ bi danga ngaa war a mel ni ko toog ak buur tiit ma kooka di tiit tiital tiit mooma te boole ci bëgg mu ne boo ko defee nag loolu lay mu ne tablux bii darajatal mulooki di nga fa jëlee darajee buur te doo am bàkkaara buur bàkkaara buur nag ko ne xam na ko yonent yàlla yàlla Muhammad moo waxoon ni ad daaru sultaan raw du sayaatin kërug buur muy dërëb saytaane fu saytaane yi féexloo nag xam nga ni lu baax nekku fa waaye fii da nga fi amee cërëb buur te doo fi amee bàkkaara buur fii fi indi ndigal nag mooy ndigal maam Serigne Fall sax jëm Fall moom la sëñ Mountakha Mbacké yónnee ci moom ndaw ni ko dafa bëgg waa Darou Khoudoss sëñ Ahmadou Mokhtar Mbacké magal gi ñu magalal Cheikh Moustapha Mbacké dañu bëgg a bàyyi dëkk bala ñu koy magal jàpp bis bi nag mooy la treize di tey jii ay juma suñu sa jëm Fall wax waagal Sëriñ gépp ñu waajal ko tey jii di fukki fan ak ñett ñëpp teew nañ fi waagal Sëriñ Fall gépp fukki ku ne si bi nee rafetal si njort li taxaw na jóg lépp bu dee looy dàq loolu sore na la doo ko jot mukk bu dee loo ñeddee jox la jon ko ja ñaan sa di ko waral Sëriñ Tuubaa suñu borom li mu ci dëlee ni ku fi ñëw fanaan fi guddi gu sell ko ñun sax borom jégal nu suñu te bu boole noo ko tey yu ëllëg ñu ma baax nag suñu daal xolam seet na bu baax woote bi daal wuy si ngeen ko dinaa wuy si ngeen nag wuy si ko ñu rafet sa njort ji la nga bëggoon da ko am sama borom yàlla na fa aju sa yaram bari na wér la yaram yi guddul fen na ak ak ak ñàkk ak tële te bool na ko wér ak bu mën ba ndigal bi ñàkk ko jëfe lool ak sa jëm Fall ak sa Modou Falil Fall jërë